waaw salaamaaleykum Moussa Mer tey waa mouvement Lepp Pikine ñoo ñëwoon seet la comme ñu ngi gis boobu bi mbas mi commencé ci dëkk ba léegi yaa ngi def ay gestes vraiment di woote tamit ci masque yi indi la fi benn somme euh, masque boo xam te ne daanaka bariwul 300 masques xam nga pour jàppale la ko ci affaire yi xeeb nañ ko torop nag te ñi nga am yaakaar tamit dinañ amaat beneen deuxième édition boo xam te ne dina ñëw tey daal loolu moo newoon suñu tànk ñu newoon seet si la fii daal. mais euh, maa ngi lay remercier bu baax ah, lii may wane ne Lepp Pikine la. feebar bi Pikine ñun ñoo ko bokk kon ku nekk da nga war a jóg xeex ci yéen fekk naa leen fii ci benn journée ngeen di def consultation gratuite euh, seet naa leen ngeen di def set setal seet naa leen yéen a ci sport bi final coupe du monde final coupe d' Afrique ça veut dire vous êtes waxoon naa leen ko une association dynamique soo leen defuloon lii dinaa ne rata ngeen l'histoire mais tey bañ ma woowee ne da ngeen koy indi ma xam ne kon yéen a ngi ci woon ci yoon bi yéen a ngi ci préparé. je essayé tamit jeudi gannaaw suba mu gannaawaat suba dinañu indil à ah, masques ñu a essayé nekk ñoo ngi ñëwloo loolu combat ça doit être un combat communautaire donc a euh, commencé seen président Khadim ak délégation au nom de toute la commune maa ngi leen remercier encourager di association da ngay am njëriñ da ngay positif ci sa commune da ngay participer ci lepp lu jëm ci ci développement donc ma ngi leen di encourager bu baax baax bu identification yi nak dafa am solo parce que ni ngeen ko defee léegi mu nirool ko ni ñu ngi jëm ci réouverture de l'année scolaire té man ñu ngi may xaar ci élèves yi ma may leen ay masque ci kat yi ma may leen ay masque d'accord ay yi masque yi ñu may jox seen ñoom ma leen koy delloo ñu wat ko ci seen gox conseil communal de la jeunesse moo ngi préparé di indi loolu su ñëwee mënu ma ko yóbbu sama kër fan laa koy joxaat askanu pikin Nord kon lépp pikin la maa ngi leen di féliciter bu baax di leen encourager Pikine noor ci kaw ci kanam ensuite pikin topp ci ci kaw ci kanam après dakaar topp ci ci kaw ci kanam après Sénégal topp ci ci kaw ci kanam après Afrique topp ko ci kaw ci kanam merci beaucoup. merci beaucoup donc di leen gërëm di leen sant vraiment di am mbégte ci mouvement lépp Pikine. ndax bi bu mu juddoo léegi gis nañ taxawaay bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw pikin di def ay consultation gratuite ba mbas mi xam xamee taxawee aussi ba léegi gis nañ taxawaay bi ngeen ci am ngir jàppale askan wi tey aussi ngeen ñëw an def geste bu am solo bi defar ay masque ndax ñëpp xam nañ ne masque yi dafa bokk ci li ëpp solo ci li mun a xeex jàngoro yi boo wàllante bi mun a dakk donc bu ngeen yëkkatee lu toll nii ñëw di ñu ko jàppale jàppale na jëf ju mag la si ñun ndax fii ñu toll lii ngeen ñu defal moo ñu ëppal milliard ndax lii ngeen ñu jox yakarna naa ne la askan wi soxla donc geureum leen ci sant leen ci sama turu bop turu conseil municipal mais aussi turu population Pikine Est yëpp di wax ne vraiment mouvement le Pikine dal dundam amna na njëriñ te gis nañ seen taxaway bi mouvement bi jundee ba légui di le renouveler dal suñu engagement ci seen côté comme ni ngeen ko waxé rek ci seen biir lañ bok lepp lu ngeen di sumbu inshallah allahu rabbi su ngeen gesso dinañ leen gis seen wet vraiment di leen remercier encore une fois di wax ne kontaan nañ ci yeen trop yalla na yàlla defal leen jamm defal leen ndam mbass mi yalla ko yalla jéxal ci réew mi ba ñun ñëpp ñu mëna a delluwaat suñuy activité merci beaucoup. waaw salaamaaleykum commissaire. tey waa mouvement lépp Pikine ñoo ñëwoon fii seet si leen. indiloon leen ay quelques masques parce que gis nañ boobu ba léegi yéen a ngi terrain bi guddeeg bëccëg suba ngoon moo taxoon tey nag comme dañuy dugg Pikine di séddale ay masques ñooy nañ njëkkee fi ci euh, ci police bi. daa jox leen ay masques daal loolu moo ñu taxoon ñëw tey. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. donc man la commissaire Fall commissariat d'arrondissement de Pikine donc man ak sama adjoint ak euh, quelques-uns de mes ñu ngi réceptionné un don de masques xam ne nii. mouvement bu ñu wax wala association bu ñu wax lepp Pikine la ñoo ñu ko indil donc ñu ngi ciy content parce que fu mu toll nii masque bokk na ci li nga xam ne moom la ñu soxla pour gën a mën a xeex coronavirus bi. étant donné que suñu élément yi chaque jour ñu ngi sur le terrain dañuy soxla lu leen aar te lii bokk ci li nga xam ne da leen di aar donc mouvement bi nag nekk na mouvement boo xam ne mouvement bu actif la parce que c'est pas la première fois ñuy ñuy seq ak moom activité yu mel nii. donc vraiment à travers euh, tous les membres qui sont ici ñu ngi remercier ci actes yi ngeen def. di leen encourager si vraiment dynamique bi ngeen nekk euh, jërë ngeen jëf merci beaucoup. dëkku bànneex boo gis yoon ba day tiis ñeme ko soog a dem soo ko ñemewul du dem bay toogee wóoy dina baax man dungu man gëm naa ne dina baax ndax lépp lépp ji bigin ñu ñëfee 爹娘。